bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu mbokku mouvement sàmm sa moomeel mbokku sabax mbokku département de Nioro man la seen doom Cheikh Sadibou Ba alias Dibeuz jiite mouvement sàmm sa moomeel maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ci santam ak ci jëmam di ñëw tey rek fas yéene waxtaan tuuti ak yéen di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñëpp ngeen ñaanal ñu jàmm di wax ne waxtaan bi lu ko waral mooy dañ dëgmal élection législative mooy tànn ñi nga xam ne ñooy toogal askan wi ci pencum ndaw réew mi ñu koy wax assemblée nationale le 17 novembre Inch'Allah, Et campagne va retomber à minuit Ganao, bi fait une ay consultation ci suñu biir maintenant, maintenant. comme nous avons fait, nous dugg ci coalition Diomaye président Da te, kom li may farelde wakwek, nyoun, an den na wale, mom le nyon la itay kurel gi, te bo sobe yale, an den na wale, mom le nyon fasyene wale lige bi, bakero gni pareti mouvma bi. Djebel lenge yi, ñeneen ñu wéyal ko ndax nul n'est éternel kenn du sax fii ci àdduna consultation yooyu mooy laaj waaw mouvement bi lan lañ bëgg a kan lañ bëgg àndal wala dañuy maandu tëddee njaaxaanaay ñu ngi seetlu na nag bii moo gën a yàgg ndax biñ ko waxee tey daanaka léegi moom mat deux semaines wala mu ëpp ko ñuy waxtaan ñenn ci biir groupe bi ñenn ñi ñu yëkkati ñu téléphone wax ak ñoom ñenn ñi ñu yóbbante ci ñoom rawatina ay kilifa ndax nag mouvement bi bëgg na ay kilifa yu ci bokk yoo xam ne bokkuñ ci groupe whatsapp bi te ñoom bokk nañ ci li nga xam ne mooy ndëgër laayu mouvement samo sa ci ñu ko xam ak ci ñu ko xamut waxtaan woowu nag tey pare nañ ci comme linga xam ne moom lañu digaloon sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi suñu royuwaay ah moom lañ def mooy diisoo bu ñu diisoo ba noppi nag ñu jàpp dara mooy jël décision wax ko ñëpp te loolu lañ fas yéene def tey incha allah euh, nga xam ne nag ñoo ñooy jongante incha allah le 17 novembre mun naa ne ñëpp oo nañ ma muy suñu sœur Anta Dieng muy suñu xarit suñu frère Goumba Gueye muy Modou Gueye dëkk Njawara te ma bëgg ñu xam ko parce que jën la aussi te ku am solo la ci gox bi ànd ak Lamine Diawara ñoom it ñuy candidat muy waa kër Alimaane ñëpp oo nañ ma ak yeneen leader yoo xam ne aussi dañoo jiite ay parti jiite ay liste au niveau national loolu nag ñooñu buñ koy am sañ-sañ di ko def li coalition Diomaye président demul élection la ndax ñoom ñëpp xam nañ ne man maa ngi bokk ci coalition Diomaye président mais ñëpp xam nañ ne également ne élection yi Pastef dafa décider dem ci couleur Pastef waaye biñ xoolee waxtaan ak xarit yeeg mbokk yeeg am di jàmm yeeg àndandoo yi surtout dañ def li nga xam ne moom lañ digaloon sang-sang yi yonent bi sallallahu mooy bu mbir jotee da diiso bo boo diisewoo ba pare jël décision biñ diisoo ak ñëpp nag li nga xam ne moom la ñu décidé tey bés ñi ki tey te dinañ ko argumenté ñuy ñaan ñëpp déglu ñu ci xel te bañ ñu déglu ak xol liñ décidé tey mooy gannaaw bi nga xamee ne ànd nañoo coalition Diomaye président fal président Bassirou Diomaye Faye tey ñu jëm élection législative mu soxla député yoo xam ne dañ koy gunge ci liggéey bi di ko votel ay projet de loi li nga xam ne moom la dig askan wi mu liggéey ci gannaaw biñ ko falee dañ na tey dañoo décider bokk ci ñi nga xam ne dañuy proposer ñu jox ko majorité à l'Assemblée nationale gunge ko ngir ëllëg ñu mën ko laaj ay résultats ndax nag buñ ko defut ëllëg bu échoué kenn mënu koo jàmbaat kenn mënu koo critiquer kenn mënu ko reprocher lan moo tax projet bi nga xam ne moom la présenté Sénégal te man ma jàng ko liir ko am ci loo xam ne indi naa ko fii ci kër gi faram-fàcce ko ak yéen buñ ko joxul majorité à l'Assemblée national xel dafay nangu ne kenn waru ko laaj résultat ndax bu fekkee ne mënta voté ay projet de loi mënta soppi xar kanamu réew mi ëllëg bu échoué tamit ñu ñoo ko ñoo def li ñuy wax may bopp rocc làmmeñ te loolu yaakaar naa war nañ ko dépassé ñu bëri nag ñu ngi may wax ne da nga war a jàppale ki nga dëkkal mooy suñu sœur di day añca Dieng waaye naam dinañ ko jàppale waaye jàppale wuñ ko rek ndax dañoo dëkk ak moom biir ma Medina Sabakh déedéet ndax mënoon nañ jàppale Goumba Gaye ndax ñu ak moom ñoo bokk ma dina sabax mënoon nañ jàppale tamit soxna Faat Seck ndax ñun ak mom ñoo bokk commune bu Médina Sabakh mënoon leen jappalé Modou Gueye bu ndjawara andak Lamine Jawara té ñom ñaar ñoo bokk ben liste ndax ñun ak ñom Modou Gueye bu Camara ndax ñun ak mom ñoo bokk dëkk ci commune bu Médina Sabakh dañuy sant yàlla ci ren yàlla dogal na ñii ma limal leen nii am nañ yaakaar ne faw kenn am ci ndam kon pour la première fois élection yi arrondissement Médina Sabakh moom mënuñ ci ñàkk a am député arrondissement Paoskoto amuñu loolu arrondissement Wack na amuñu loolu commune bu Nioro amuñ loolu ñun rek ñoo ko am te dañ ciy sant yàlla di gën a ñaax ñëpp ñu gën a góorgóorlu ndaxte tànnin boobu bu ko kenn xeeb su amee rek c'est parce que am na ñoo xam ne ñoo ngi leen di sóoraale ci biir commune bu mel ne Sabax na ko jëpp bàyyi am na ñoo xam ne ñoo ngi leen di sóoraale ci biir arrondissement Médina Sabax na ko ñëpp bàyyi xel kon bu kenn xeeb kenn yëngatoom yëngatu yi ñuy yëngatu ñun waa sàmm sa moomeel ci arrondissement bi depuis six ans ñun gëm nañ ne am na jeexital ci considération bi nga xam ne jox nañ ñu ko ci département Nioro te mënoon na sax gën a yokk te am na it jeexital ci considération bi nga xam ne ñu ngi ñu koy jox Sénégal te loolu it mënoon na gën a yokk kon loolu am naa yaakaar ne ak ñeneen ak ñeneen nag du ñun rek bu ko kenn xeeb en tout cas ren incha allah arrondissement Médina Sabakh moom am nañ yaakaar ne fow dina am député ñuy ñaan nag député boobu bu soobee yàlla ak député yi muy fekk assemblée nationale li laay député parti politique buñ doon député leader politique nañ doon député Sénégal nañ xamné Sénégal ñoo leen yónni député dafa am lu tax ñu ko contrôler action gouvernement ci la bokk di contrôler ndax gouvernement bi mi ngi wala jaaralewu ko yoon te Sénégal nag par parloo daf koy bëgg yàq Sénégal par parloo mi ngi koy bëgg a yàq ndax li xew Sénégal mooy koo àndal lu wax dëgg la même bu dul dëgg di nga ko jéem a defar ba def ko dëgg même bu la leeree na du dëgg boo tëddee sa lal yow kenn ak yàlla dinga xam ne lii du dëgg faw nga jéem ko defar refatal ko ba mu doon dëgg koo àndatul bu waxee dëgg wala mu jëf loo xam ne lu baax la te dëgg la dinga nga fexe ba yàq wax jooju ba yàq jëf jooju ba kenn du ko nangul di nga ko jiiñ ne ko politique moo tax moo koy def walla di nga fexe daal ba yàq ko ba kenn du ko déglu yaakaar naa combat yi nga xam ne combat nañ ko fii ci Medina Sabax lu bëri mun na ko firndeel ndaxte c'est des combats citoyens bi ci mujj mooy ndox bi nga xam ne yëkkati dañ ko te ku ci nekk ci ñun boo fay ndox sa ndeyang koy fay wala sa baay te biñ ko yëkkatee yaakaar naa ne waa arrondissement Médina sax bëgg na ci ñoo xam ne dañ koo dummóoyu te seen njëriñ kese moom lañ ci doon sàkku te moom lañ ci doon ut kon gannaaw ñaax bi nga xam ne ñu ngi koy ñaax candidat yi ba buñ faloo ñu taxaw taxawaayu askan dañuy ñaaxit électeurs yi ak citoyens yi ñu xam ne Sénégal ñëpp a ko bokk ñun bi ñu àndeek coalition Diomaye ba tey lu lépp loo xam ne gis nañ ko neex nañu déedéet tey buñ ko waxoon bu leen neexee ngeen jàpp suñ loxo tudde ñu ndax bés bu set ay yoon yu bëri ndax bu ma julee muy farata muy na dinaa tàllal sama loxo yàlla ñaan ko ne ko yàlla bu ma doon naafeq bokk na ci li may ñaan man te gëm naa ne ñaan boobu yàlla nangul na ma kon duma jay nit mukk nag te ni nga xamante ne noonu la amee ci biir ñiñ àndal mooy coalition Diomaye noonu la amee également ci ñi nga xam ne ñoom lañ àndal à la base au niveau de la l'arrondissement de Médina Sabakh te loolu bu ma daanalee incha allah dinaa ci ñëw ci lu yaatu ci waxtaan suñu biir dëgg te dëgg rek moo neex yàlla te dëgg mooy mujj ñu xam ne tey bu fekkoon ne ànd bi nga xam ne ànd nañ ko teg nañ ko ci yoon ci dëgg liñ war a doxal ñu doxal ko ci yoon ci dëgg konoon tey duñ wax dibeuse kan lay àndal ak kan lay jàppale ndax nag mbir boo ci bokkee kenn waxatu la laaj koy àndal ak koy jàppale buñ demee ba ñu koy laaj c'est parce que am na lu ci xew loo xamante ne lu jaga waxtaanee la bu fekkee ne dañ bëgg suñu ànd bi yàlla gërëm ko faw ñu lal ko ci dëgg loolu pootum biiru néeg la yaakaar naa dinaa ci ñëw ci kanam mais fii lay daanelee di wax na ñi nga xam ne bokk nañ mouvement sàmm sa moomeel te décision bii ma jël ànd ñu ci am nañ ci droit te maa ngi leen di jéggalu tamit tey laa gën a ànd ak ñoom ci mouvement sàmm sa moomeel tey laa gën a ànd ak ñoom ci defar sabax tey laa gën a ànd ak ñoom ci ànd nawle may waxal ña nga xam ne nag ñoo may déglu ñëpp décision bii ma jël leblewuma ko te feyeeku ci bopp jooju bëgg naa ñëpp comprendre ko du lu ma lebal kenn ndax la moom ci jëf man jiguma ndax yàgg naa ko def te feyeeku moo ci xëy na nag du feyeeku buy jógee ci ay doomu aadama laa ci doon séntu yàlla rek laa ci séntu ab payam te tamit séntu ma ci du bor bu may lebal kenn du li may fayal fay kenn bor tamit ndax yaakaar naa ne trente sept ans wala presque quarante ans maa ngi koy yëngatu ci goxu sabax mun naa ne tey amul benn jëf boo xam ne dinaa ko jëf ñu ne ma diw nga ko defal ndax lim la defal moo tax nga fay ko boog boobu ndax élection am na solo trop waaye élection dafa mus a am solo te yaakaar naa du tey rek laa bokk ci élection ànd bii nag ñu bëgg a ci liste Pastef nañ ci ànd suñu jëmm nañ ci ànd ak suñu ñi ñuy déglu nañ ci ànd ak aussi ak suñu jàppale suñu moyen jàppale leen ba nga xamante ne kenn du lam-laamee ndax ànd nañ wala ànduñu ñun moom ku xamee nañu responsabilité ak fit ba luñ gëmut duñ ko wax luñ gëmut duñ ko def ku ñu gëmul ku ñu bëggul àndal tamit dañuy wax ne ànduñoo yow kon ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal Sénégal élection yii ñu jëm mu nekk élection yoo xam ne dafay dal